fonk sëñ bi xasida yi moo gën a gaaw moo gën a gaaw ci jege sëriñ bi moo gën a gaaw ci am ngërëmal sëñ bi a gaaw ci defaru doomu nii moom yàlla dana ma womatal ilal jinaani ba kerek may dugg aljina allahu yàlla tabsiira man ka nga xam ne ba dat leer na naññ liya ñeel ma xollaahu kawe gim kawe munu sun boroom ba kerek may dugg aljina daf may womatal mbégteem yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne man Serigne Touba xaama kuy sikk sàkk kawe gim kawe fa yàlla mais du man yonent bi kawe gim kawe kooku moom leer na ma nañ Serigne bi dafa nangul yonent bi ci anam yépp léegi gis jullit boo xam ne day wane ne dëgg-dëgg jullit la wala nga gis murit boo xam ne day wane ne dëgg-dëgg murit saadix la waaye am na loo xamee ne ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ne ne nii la ko yàlla def fii la ko yàlla teg mais nangul ko jox cër boobu yonent bu ne cër ba ko yàlla may dafa bokk ci li nga war a gëm balaa sa gëm de mat faaw da koy gëm te itam doo gëm benn yonentu weddi téere ñu wàcc ci moom wala kawteef yañ wàcc ci moom déedéet moo ci saar yañ wàcc ci moom déedéet lépp ngay gëm doo teqali itam benn yonentu yonentu yëpp ngay boole gëm kon yaqoodu ni dana ma womat ilal jinaane ba kerek may dugal jana allahu yàlla yaqoodu ni dana ma womatal allahu yàlla ilal jinaane ba kerek may dugal jana tafsira man mbégteem ka nga xam ne ba dat leer na naa ñi ma allahu kawem ga kon xasida googu mu tënkee ahadisa wasilati foofu la yem léegi nag ca wa allamani bi taxlimihi ahadisa wasilati nang ma xamal ci sa njàngaleem bopp yow yàlla ci sa xamleeg bopp nang ma ci xamal ahadisi yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax nag mu ne bi jaahi nang moo xamale ci darajaam sala yàlla na ko julli allahu yàlla taala yow mi aji kaw ali ci yonent bi wasalaama tësalmal ci moom waaye nag boo ma xamalee ahadis yonent bi ba nëpp ci sa xam ci sa xamle yow yàlla maa ayaati kitaabihi aayay téere bi moom yonent bi muy alquran al aziz si téere ba di aji tedd bilaa makrin ci lul benn pexe nag gis nga ko wala xururin wala ak waru wala istidraajin wala ak njeyel wala afatin wala ay gàkk-gàkk wala kadrin wala ay nax-nax fiye di nekk ci man wala bayni du caagre muy nekk sama diggante wa bayna ahadin ak diggante kenn abadan faw amin yàlla na nga nagu ñaan yaa rabbal alamin yow yàlla borom bi defi yaa mursilu yow mi aji yónni kulli mursal bépp yónentu mu ne yàlla boo ma xamalee ahadis yonent bi sallallahu xamale ma ko ci daraja yonent bi yow yàlla mi aji kaw ji yàlla na ko julli ni ko yàlla xamalee hadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu xamalee ko ko aayay téere bi te mooy alquran lépp téere bi nga xam ne téere bu la te tedd mu ne xamal goo nga may xamal ahadis nag ay alquran yi mu ne pexe bu mu ci am waxoon naa la defal dara fekk dalay pexal moo tax bi waxoon naa la toujours su ñaanee yàlla na ko defal ma nangam rek la koy yàq dafay wax yàlla musal ko ci moo tax mu ne bu ci pexe am bu ci waru nëbbu bu ci njëyal am bu ci benn gàkk-gàkk am bu ci benn nëx-nëx am nëx-nëx bi moo xam muy nekk ci man ci sama jëmi bopp wala muy nekk sama diggante kenn. sëriñ bi kon mostu bëgg rek nëx-nëx di doganteem di dox digganteem sax ab tubaab wala koo xam ne ab kàccor wala ab yéeféer sëriñ bi moom ñëpp la ëmbaloon jàmm moo tax ne pexe bu mu ci am waru bu mu ci am njëyal bu mu ci am gàkk-gàkk bu ci am nëx-nëx bu mu ci am boo xam ne dafay nekk ci man wala muy nekk sama diggante kenn ci nit ñi yàlla nga nag ñaan yow yàlla muy borom bindéef yow mi nga xam ne képp ku ñu naan ab yónentu la rek la ko dalee ci aadama ba ci yónente yàlla Isa ba ci yónente bi salaasam ñëpp yàlla ñu yónni yaa mursilu kulli mursal mu tàmbalaat geneen xasida goo xam ne da koo tënkee alhamdulilahi minhu abadan bi ci tagg yonent bi di wane li jaadu ci yonent bi ak ci mboolem yonent yi liñ war a gëm bisimilah sos na man sama wax ci tudd turu buur bi arrahmaani buur ba di aji xéewalaa kon ñëpp ci àdduna arrahimi buur ba di aji yërëm ku ko soob ci àlaaxira wasala yàlla na julli allahu yàlla ala sayidna ci kaw sunu sang bi o mawlana tey sunu kilifa muhammadin turam di muhammad wa alihi ak ñoño oson bi ak saabaam yépp wasalamu tamu dolli koolu tasliman ak dolli koolu mu ne maa ngi tàmbali ci turu yàlla yàlla muy xéewalaa kon bépp mbindeef ci àdduna tey aji yërëm ko soob ci àlaaxira mu ne maa ngi dagaar ci sunu borom mi nga xamee ne buur bu màgg la te kawe te lool mu julli ci yonent bi di sunu sang di sunu kilifa turam di Muhammad yàlla yàlla julli ci waa këram waa këram yëpp yàlla yàlla julli ci waa këram ak saabaam te dolli ko kóllute dolli yonent bi sallallahu alayhi ak kóllute ak mucc baatab alhamdulillahi minu abadan di max naa li muy firi mooy cant yëpp yàlla rek ko ko yeyoo cant yi lu muy bëri bëri yëpp day mujj rek delluwaat ci moom kon alhamdu xeeti cant yi cant soo ko déggee mooy melokaanu yi rafet yeeg xeeti tagg yëpp alhamdu xeeti cant yëpp li laay ñeel na yàlla minhu muy tukkee ca moom jëmaat ca moom abadan faw cant yëpp daal yàlla rek ko yeyoo yàlla rek ko yeyoo yàlla rek ko jegoo suñ doon xool waaw kan kan kenn rek moo yeyoo ak cant dañ naan yàlla rek donte nit ñëppay cantante mais cant yëpp boo ko xoolee dafay delluwaat ci yàlla. cant gi yàlla sant boppam dafay dellu ci boppam kum cant ab jaamam dafay dellu ci boppam jaam ñi santante seen biir dafay dellu ci boppam jaam ñi sant bu ñuy sant seen borom dafay dellu ci yàlla ba tey kon cant yëpp dafay delluwaat ci yàlla wiiri wiiri la gaay yi di wax rek jaari ndaare alhamdu cant daal li laa ñeel na yàlla min hu ca moom abadan faw lépp rek ca moom la jëm moo ko yeyoo mu jël alif gën a ahmadu naa sunu ahmad mi al muxtaaru kada kuñ tànn lam yu baaxa desul puukara wante ak moom mukk fil xalq ci bind bindee fi fil ci bind wal xulqi ak jukko walan yu baaxa te deesul puukara ak moom mukk mu ne sunu yonent bii di ah, di muxtaar mu ne lu ñuy tuddee bind bind bu rafet bu ne fil xalqi mooy bind boo xam ne bind bu rafet la la ma waxoon waxu ak malul ra xalqan wa xulqan saxara kon bu dee yonent bi cër yi organes yi ni ko yàlla bindee bokkut ak beneen jëmm joo xam ne rafetee na noonu yonent bi rek la. jukko ji itam nu matee ta rafet bañ na ko wa innaka la ala xuluqin asimin te loolu moo taxoon yàlla yónni ko mu ne innama utima li makaarimil axlaax dañ maa yónni ngir ma ñëw mottali jukko yu rafet yi. kon bind bi moo ko gën a rafetle gën koo matle mais jukko ji moo ko gën a rafetle gën koo matle ñëpp bal sax ñëpp moom la ñuy roy ci wàllu jukko dégg nga kon yàlla da ko yónnee ngir mu matal jukko yu rafet yi innama bu'istu li utamima makaarimal axlaax dañ maa yónnee ngir ma ñëw rek mottali jukko yu rafet yi moo tax mu ne cëlawa yi daal kenn du puukarawante ci moom ci bind bu rafet ak jukko ti lu ñëw itam kenn du ci puukarawante ak moom kon ahmaduna sunu ahmad mi al tànn lam yu baaxaa cëlaway amul kenn kuy wante ak moom fil xalq ci bind ci rafet la ko ci matle ko wal xulq ak jukko ci rafet la ko ak ci matlu ko walan yu baaxaa te ci luy ñëw kenn du puukarwante ak moom mu commencé na di wax lu jaadu ci yonent yi li nga xam ne danga ko war a gëm faw balay sa gëm di mat danga ko war a gëm su ko defee nag mu indil la ko benn bu ci nekk ak seeni safaan mu waxal la ko pour nga mën koo bàyyi xel la nga xam ne mustahil la ci yonent dafa jomb ci ñoom loolu nga bàyyi ko xel bañ koo tëqal yonent ya la nga xam ne dafa yelle ci ñoom nga taggee ko yonent ya leen ko su ko defee mu indi ko par benn par benn mu ne lam yan xooxoo moom yonent bi du ko jublu alkasi bu fen yonent du fen wal xiyaana ak wuruj wal kat mu ak nëbbu dëgg këru suli ni ko yonent yëpp noonu lañ mel wal xiyaana ak wuruj mu ne ab yónentu yàlla du ko yónni ba noppi jox ko dëgg muy fen déedéet naka noonu yàlla du ko wóolu ba noppi dénk ko amaana mu wuruj mel na ku war yàlla wala yàlla na ko jotalal li ma la yónni ci yónent yëpp jotalal li ma la yónni ci nit ñëpp mu am lam cey wàññi mbaa wala sax mu xam ne lii dëgg la ba noppi di ko nëbbu bañ koo wax ñu ko yónni moo tax mu ne moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam lam yan wuhoo du ko jublu mu ko alkasibu fen muy ñàkk wax dëgg ab yonentu bokk na ci lu jomb ci moom mooy mooy du fen dëgg rek la yàlla wax loo rek lay wax wal xiyaana ak wuruj wuruj mooy lu ñuy wax wor teppi kóllëre maanaam yàlla yónni la nga dem wàññi ca wal kat mu ak nëbbu dëgg maanaam wax war a wax nit ñi la yónni dëgg ba noppi nag am loo ci nëbbu kër rusuli ni mel ci yonent bi kër rasuli ni ko yonent yëpp ba tey duñ def loolu ñu def alkasiba duñ xiyaana duñ katmu wal xiyaana ak wuruj dégg nga alxiyaana wuruj ak wor benn rek lañ alxiyaana gu ñag gi mooy wuruj rek mais bu mu jig mën nga ko firi ak wor kon da nga lam yen xoo moom yonent bi du ko jublu alkasibu fen wal xiyaana ak lu ñe tuddee wuruj wal katmu ak bu dëgg kër rasuli ni ko yonent yëpp noonu la demee dégg nga wal xiyaana ak wor mais duñ fen duñ bu dëgg. indil na la kon yi nga xam ne safaan lañ nga xam ne mustahil lañ ci yonent ya da nga leen ko war a dàqal dafa jomb ci ñoom de mu ne xafisoo wattu na ko moom yonent bi bi sidiq ci dëgg wal amaana ak amaana mun si lu sikrin yàlla muy aji wàcce alquran saara moom mi nga xam ne mujj na lii ci man amaana nekk sama amaana sama kullite mu ne yonent bi yàlla da ko aaree sàmmee ko dëgg maanaam ci dëgg rek lay sax ak amaana amaana mooy li liñ ko jox gi giñ ko jox li liñ ko jox julli ak ya ci aj yëpp mooy amul lenn loo xam ne dana ko ci wuruj lépp daal dana ko jotal mu ne kon yàlla daf koo sàmmee dëgg kon kasib lay safaanam wala nga ne sidduq lay safaanam mooy kasib amaana lay safaanam mooy xiyaana dégg nga ab yonentu kon danga naan dëgg rek moo koy tax a jóg du fen ndax boo nekkul ci dëgg kat yaa ngi ci fen danga naan amaana giñ ko jox dana ko matal du ci wuruj dara gis nga ko kon boo ne sidiki safaana mooy kasib mooy du fen boo ne amaana safaanam mooy xiyaana mooy xiyaana naka noonu dana indi tabliix boo ne boo ne tabliix safaana mooy katmu ñi ne la jotalal nga nga nëbbu yow nangoo koo jotal lii yëpp ay mustahilaat la yoo xam ne dafa jomb ci yonent moo tax mu ne xafiisuhu wattu na ko moom yonent bi su waxee yonent bi day demat ci yonent yëpp xafisoo wëtu na ko yonent bu ne rek danga dangaa war a gëm lii xafisoo moom yonent bi yàlla wëtu na ko bi sidiq ci dëgg du fen mukk wala amaana ak amana mooy ndénkaan li ko yàlla jox pour nga xamee ne mu jotal ko ñëpp du ci wàññi dara naka noonu du ci wàññi dara du ci wuruj mukk wëtu na ko mun si lu sikrin yàlla muy aji wàccee alquran ji nga xamee ne saara mujj na lii ci man amaana nekk sama garante sama sécurité alquran ji nga xam ne yàlla moo ko wàcce te mujj na nekk sama sécurité nee na yàlla mi wàcce alquran jooje nag moo sàmm yonent bi ci dëgg jox ko amaana te yonent bi du wax du wax loo xamee ne dafa nekk ci gannaaw dëgg wala mu ciy wuruj dara. malaka nii moom loo na ma bi man ka nga xamee na loxo ñeel na ko tabliixu ak jotal. kitaabat yi li nga xamee ne moo di sama mbind. wala xoo ñeel na ko bullooxu ak jotal li ñeel ma. mu ne ki nga xam ne bokk na ci ay melokaane yi nga war a gëm. mu yonent bi sallallahu alayhi ne jotal na lépp waxoon naa la buñ na tabliq safaana mooy kat mu waaye waaye jotalal waaye am na loo jotal mais am na loo bàyyi da nga koo nëbb xëy na da ngaa ragal ñi la yónni mu ne nag te ba nga xamee ne dafa yell ci moom jombut ci moom mooy lu ñuy wax jotal du nëbbu dara du ca wàññi dara nee na moom loo na ma sama mbind. te itam lépp loo xam ne waroon naa ko jotal man sëriñ bi ci sama mbind jotal ko jaam ñi pour ñu war koo jëriñoo ñoom jot nañ ci. xoolal sëriñ bi lu mu bind ci ay xasida kenn xamul nuñ toll kenn xamul ko la mu war a wax yëpp wax na ko amul lenn loo xam ne dañ naan sëñ Tuubaa na ko dégg nga ne alquran matale fàttu dara maa farat naa fi kitaab min seen xasida yi noonu rek lañ mel kon malaka nii moom loo na ma bi man ka nga xamee ne loxo ñeel na ko tabliixu ak jotal moom loo na ma kitaabati sama mbind maanaam moom loo na ma waxtu ne may bind moo tax mu ne dégg nga wala loxo ñeel na ko bu looxu ak jot sëkk lii ñeel ma maanaam bi ko yónent bi moom loo muy bind ba tey la ko yónent bi moom loo pour muy bind loolu itam wàññu ci dara moom sëñ Tuubaa dafa jot dafa mat sëkk mu tegaat ci ne daxaa woo na ma daxaa woo na fu aadee sama xol alkitaabu alquran fan daxaa te mu wuyu waxaat aqastoo te mbir moom jàpp naa ko bi sukkurin ci sant wa ak ñaan mu ne a alquran moo woo sama xol sama xol dal dina yëkkat dal di wuyu ko commencé nag di sant yàlla ak di ñaan yàlla nee na nag alquran bi mu wooyee sama xol sama xol dafa wuyu in daxaa mooy ajaaba rek mooy xol boo xam ne dafa nangu dafa wuyu maanaam kako woo daf ko wuyu sëñ bi nee ne bi xol bi wuyoo téere bi nag dama jël téere bi nag di ci sant yàlla ba noppi nag di ñaan yàlla liman lahoo jaasa mu baaxul basari min niya xidmatun yi li man ñeel na ka nga xamee ne lahoo ñeel na ko jaasa li nga xam ne dafa dagan mu baaxul basari ci way dagan ci mbindeef yi ñeel na ko mi nee tukkee ci man xidmatun liggéey boo xam ne tuddiimu dana saxal busari sama mbégte mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci li nit war a gëm ba tey mooy lépp lu yàlla daganal ci mbindeef yi noonu la dagalee ci yonent yi nga déggee ci dem ca marché baak tawat ak xeet yooyu yëpp xeeti métier yëpp daan lu mel ni sàmmook lu mel ni tëggëk yooyu yëpp ay métier la xam dafa dagan yàllaa ko daganal noonu la dagalee ci ni mu ci mbindeef yi noonu la daganee ci yonent bi noonu la bëgg wax waaye ni mu daganee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam la daganee ci mboolem yonent yi kenn ku nekk amoon na sa métier bopp mu ne bàyyeekoo na ci man nag jëm ci yónnante boobu nga xam ne li dagan ci mbindeef yëpp dagan na ci moom bàyyeekoo na ci man jëm ci moom liggéey boo xam ne dafay saxal sama mbégte moo tax mu ne la nga min ye bàyyeekoo ci man xidmatun ab liggéey tu diimi boo xam ne dana saxal bu suri sama mbégte li man jëmee ci ka nga xamee ne laxoo ñeel na ko jaasa ak dagan mu baaxul basari li nga xam ne moo dagan ci mbindeef yónnante bi daal lu dagan ci mbindeef rek moo dagan ci moom dégg nga waaye nag am na ci yoo xamee ne moom du dal ab yónnante dana ko wax si nii laxoo wali rusulul kiraamil aradu in sin bihi yanmul jasa wal karadu laxoo ñeel na ko moom yonent bi wali rusuli ak yeneen yonent yi alkiraam ña daway tedd aral lu ñëw xaral dégg nga aral mooy lu mel ni nit ki tawat bopp bi di métti ba tànk di métti maanaam daal jëmm ji daal moo xam ne aral mooy tawat rek loo xam ne su dalee nit ki gaar ko dafay tegtale diw matut loolu rek lay tegtale xam nga yàlla xaral du ko gaar bokk na ci li jomb ci yàlla moom xaral mooy tawat ak yépp bopp bi métteeg kooku moom du dal yàlla waaye lépp luy dal nit rek loolu dafay dal yónent lu mooy nag mooy lu mel ni ñu ne yónent bi feebar na ba tànk dagg wala nopp yi dagg wala nangam dagg loolu mustay li ci ab yónent waaye nag feebar nag di tëdd ba yàgg mu tene jokk yooyu moom yónent yépp ñoom lay dal moo tax mu ne dalaa bëgg a xamal ne ni dagganee ci yónent bi dagan ko ci mbindeef yi noonu la dagane ci mboolem yonent yi mooy nga xam ne yonent yëpp xaaral daf leen di gaar léeg-léeg dañuy tawat nu ñëpp di tawatee ni ñuy demee ci marché ba di liggéey noonu la ñuy xoppee moo tam ne loxo ñeen la yonent bi wala rusli ak yeneen yonent yi alkiram ñi da way tedd aaradu lu ñuy tuddee xaral mooy feebar da leen di gaar moom yonent boobu insin jëmm la joo xamee ne insin nit la koo xamee ne yan moo dana dolee koo bi ci moom aljasa pay wal xaradu ak xamemteef ya mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nit la koo xamee ne ci moom ci li yàlla defee mboolem fay yi muy dollil ay jaamam ak seen xemamteef yi ñuy xemam yépp suñu borom mu ngi koy dollee ci moom mu ngi koy yëkkatee ci moom. kon ñoom ñëpp yonent bi nga daree ko ci yonent bi leen gën ñoom ñëpp ak yonent yëpp aaral daf leen di daal muy feebar waaye moom jëmm la joo xam ne ci moom lay yàlla di dollee fay yi ak xemamteef yi ba ci aljana sax ku yàlla dollil sax fay ci daraja yonent bi ci la la ko dollee. ku yàlla defal sa xememteef ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko defalee moo tax insi nit la ko xamee ne yan moo dana dollee koo bii ci moom aljasa fay yi wal xaradu ak lu ñuy tuddee xememteef yi. imaanu naa sunu gëm bii ci yonent bi waajiban aji war la yuram goo xam ne des na ko sàkku wa bi rusli ak yonent yi alkiram ñi da way tedd ba tey lu war la de wal kut bi ak téere yëpp wala amlaaki ak malaaka yépp mu bokk na ci li nga gëm. te waroo koo teqale gëm gi dafay laaj rek ijmaal mooy mbëmbëstal waaye laaju tafsil mooy di teqantal ni nga gëme yonent bi nga war a gëmee yonent yëpp ak téere ñu wàcce ci ñoom ak gëm malaaka yëpp gëm ne malaayka yi ay jaami yàlla yu dul mooy yàlla duñ dem wana duñ lekk duñ naan duñ xayta duñ tuur ndox ñoom seeni tasbihaat yi ak yi saaju mooy seen ñam mooy seen naan danga war a gëm loolu gëm na yonent yëpp ci yàlla lañ bay ko yàlla moo leen yónni nga bokk bokk gëm ñëpp mënoo gëm Iisaa weddi Muusaa dangaa war a boole yonent yëpp daal di leen gëm gëm seen téere gëm la yàlla la leen yàlla jox ci ay kawteef moo tax mu ne imaanu naa sunu gëm bii ci yonent bi waajibun aji war la goo xam ne yuraam des na ko sàkku wa bi li ak yonent ya ba tey nga gëm leen alkiraam ñi di way tedd dafa war waxtu da nga di ko sàkku di ko gëm wal kut bi ak téere yëpp wala amlaaki ak malaaka yëpp xibaatu sil yow mi mayu ka nga xam ne mooy borom bis al asimi dadaa ji màgg wal qadar ak dogal yi nee na mayam xat sansaat ñoo dàqali xëyri naa mu jëm ci kudul ñun ku la qadar bépp nax-nax may sun borom mi nga xam ne moom moom bis bu màgg ba loolu ñëpp xam na ko mooy bis penc bis la bu màgg yàlla moom nga xam ne moom moom dogal yu neex ak yu naqar yi yëpp moo leen moom nee na mayam yi ci boppam ñoo dàq mu jëm ci kudul ñun Sëriñ Tuubaa lépp luy naqar lépp loo xam ne xëyti jafe-jafe la ak nax may yi ma yàlla defal daal moo dindi ci man lépp luy nëx-nëx mada tàllal na muhammadun muhammad rasulullahi kadi ndawal yàlla li tàllal na lii jox ma maa xamaa ni loo xamee ne moo ma xaar walis lépp luy lor walaahi ak caaxaan nee na yonent bi di muhammadu rasulullahi nga xamee ne moo di turam mooy ku ñu sant mooy ndaw li yàlla yónni ci mbindeef yëpp nee na jox na ma loo xamee ne loolee yonent bi jox ma moo tax mu mucc ci lor yi ak caaxaan yi maanaam lor du ma gaar mais duma jublu caaxaan caaxaan du ma jublu moo tax mu ne madda tàllal na mooy jox na rek lii ñeel ma muhammadun muhammad rasulullahi kay ndawal yàlla li jox na ma maa loo xamee ne xamaa ni xaar na ma xan asan walis lépp luy lor ba duma ma gaar walaay ak lépp luy caaxaan ba du ma jublu duma ko jublu maanaam lor du gaar mais du ma jublu caaxaan caaxaan du ma jublu moo tax mu ne madda tàllal na mooy jox na rek lii ñeel ma muhammadun muhammad rasulullahi kay ndawal yàlla li jox na ma maa loo xamee ne xamaa xaar na ma xan asan walis lépp lu lor ba duma gaar walaay ak lépp lu caaxaan ba duma jublu duma ko jublu nabastu sànni naa maa xasamtu loo xamee lu màgg la wacillaahi ngir jëmmi yàlla ji bi nafsihi ci laa ko sànnee xablu ci lu jiitu bi hifsillaahi ci wëttug yàlla ànd ko wëttug yàlla muy karangeeg yàlla mu ne sànni naa mbir moo xam ne mu rëy la bi ma koy sànni itam dama ko sànni rek ngir jëmi yàlla te loolu maa ngi ko defoon ca la jiitu mooy ba muy dem ci géej ga ba mu ci géej ga ba muy dem ci géej ga lam jaayantoon ak yàlla te lu rëy la lu màgg la mu sànni ko na du ko lekk ba noppi nag deseeg yàlla nekk ci kaaraangeeg yàlla kon sëriñ bi yàlla rek moo yoroon mbiram mais nekkul lu ñuy lekk moo ko yore wala lu ñuy naan ndax nee ay mbir yu rëy la sànni bañ koo xool bañ koo lekk bañ koo xalaat su ko defee deseeg yàlla yàlla di ko moo tax mu ne nabrastu sànni naa maa xasantu loo xam ne dégg nga màggalees naa ko wàcci laahi jëm yàlla ja bi nafsi ci sànni gi ma ko sànni maanaam daal la sànni dama ko def ngir màggale ko jëm yàlla ji kon nga déggee ci daf ko daf ko def ngir not bakkanam ngir not bànneexam toroxal saytaaneem wan ganaw adduna moo tax mu ne nabastu sànni na maa loo xamee maa xasamtu loo xamee ne màggalee naa ko aw kay nabatu sànni naa maa xasamtu loo xam ne màggalee naa ko wàcci laahi wàccalaay gi yàlla ji bi nafsi ci sànni gi ma ko sànni xablu ci lu jiitu bii si laay nekk ci wutug yàlla nag ci kaarangeeg yàlla kon li ma sànni la bëgg wax ne ne dama ko sànni ngir màggalee ko yàlla te loolu ne ci lu jiitu la ba may dem ci géej ga ba noppi nag nekk ci wutug yàlla ci kaarangeeg yàlla hudal la si njubug ka nga xamee ne xaada womat na ilayhi jëmee ca moom aswara saari alquran huwa moom ca dëgg-dëgg alhuda mooy njub de wa nuyraata leeralees na mi nii ci man alxal bu xol ba mu ne njubu ki nga xam ne moom la yàlla wàcc ci moom alquran muy saari alquran yi nee na njub googu mooy njub de benn njub rek mooy am mooy njub ak yonent bi moom rek am ci njub googee ne ci la yàlla leerlee sama xol bam leer naññi aska salaatin gën kaa seetlu julli bi salaamin gu ànd ko sëlmal lantiha goo ne déet yemukaay laxaa di ko ñeel ala man yàlla nekk ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne xaada womat na liy jox ma maa yustaha lépp lu ma doon bëgg. nee na julli ga ca gën a seetlu gu ànd ak sëlmal gudd am yemukaay yàlla na ko yàlla sotti ci kaw yonent bi nga xam ne lépp lu ma doon soxla rek womatal na ma ko. lii ci man al akramu ka nga xamee ne mooy ki gën a tedd bilaay ci kàttanug yàlla wal kitaabi ak alquran wa rasuli ak ndaw la ñu yónni xëy rasul ngën ci la ma doon laaj yàlla. mu ne a la doon laaj yàlla la ca gën ñëw na ci man de ci mbaaxu yàlla ak alquran ak yonent bi ci mbaaxu ñett ñi daal boo ko boolee muy mbaaxu kenn ki rek muy yàlla nee na ngën ci la ma doon laaj yàlla ci la ma ñëwlee moo tax mu ne aw sala egsi na lii ci man dégg nga al akramu la gën a tedd bu la neex nga fi dégg na al akramu la gën a tedd moo yegsi ci man dégg nga moo yeggali ci man bilaay ci kàttanug yàlla wal kitaab ak alquran wara rasul ak yonent bi xay rasul ngën ci la ma doon laaj ka gën a tedd daal moo eggale ci man ci mbaaxu yàlla ak alxuraan ak yonent bi ngën ci la ma doon laaj mu dellu tegaat ci ne dalani tegtal na ma allahu yàlla alallahi boppam kama qaara niki noonu la wooma talee lii jox ma bi rasul ci daraja yonent bi sikran alxuraan moo kama gadaguñ xereñee ci solo lu fàddu mu ne yàlla moo ma wan boppam tegtal ma boppam jox ma al alxuraan ci daraja yonent bi sallallahu alayhi yàlla daal moo ma maa ngi nii wan ma boppam ba ma xam ne lii mooy yàlla ma sax ca dégg te du ma ko wàcc waaye mu jël alquran ji nga xam ne dañ ko xereñee ci sol fàdd wommat ko teg ko sama loxo ci darge yonent saa sa may doxal. inna rasulullahi naka yonent bi yàlla bi lam yu baaxa amul kenn cëlaway ku mos a wante ak moom fil xalq ci bind wal xulqi ak jukko walan yu baaxa te ci luy ñëw ba tey kenn du ci wante ak moom. mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo doon wiiri fee ñëway moo leen gën mat bind gën leen koo rafetle moo leen gën a mat jukko gën leen koo rafet la de waaye bët na di tukkeeti ñëpp moo leen gën a rafet bind gën leen rafet jukko kon xasida goog di alhamdulillahi minu abadan defe naa ne kon foofu la yem mu tàmbalaal geneen xasida goo xam ne da koo tënkee akramanil jamilu akramanil jamilu moom la ko tënkee mu ne bismillahi sos na ma sama wax ci tudd turu buur bi arrahmaani buur ba di aji xéwlaa kon ñëpp ceedu na rahimi buur ba di aji yërëm ku ko soob ci àllaaxira wa sala yàlla na julli allahu yàlla ala sayidina ci kaw sunu sang wa mawlaana tey sunu kilifa muhammadin turam di muhammad wa ali ak ñoñña wa sahbi ak sahaabam yëpp wa salamu tumu dolli ko wóolu tasliman ak dolli ko wóolu wa taqabala moom yàlla maa ngi koy ñaan ba dana nangu min qaa'ili jëlee ci aji wax xaasil abyaat yi bayit qawluhu waxam xaasaa ji wa jaaloo yàlla na ko def moom yàlla min akbiril ayaati mu bokk ci gën kaa màgg ci keemaanam yi mu ne maa ngi tàmbalee ci sama xasida gi ci turu yàlla yàlla muy xéewlaa kon bépp mbindeef ci àdduna tey aji yërëm ku ko soob ci àlaaxira maa ngi dagaan ci yàlla mu julli ci yonent bi di sunu sang di sunu kilifa turam di Muhammad yàlla yàlla julli ci waa këram ak saxaabaam yëpp te dolli ko kóllite maa ngi ñaan sunu boroom man mi woy xasida gi man mi woy bayit yi yàlla nangul ma ko ndax jëf la joo xamee ne ak jëf bokk ci jëf yi maa ngi ñaan yàlla nag mu nangul ma ko ci sama wax ji muy xasida gi waaye nag su ko nangoo maa ngi koy ñaan mu def ko mu bokk ci keemaanam yi gën a màgg keemaan yi gën a màgg ci keemaan yàlla yi maa ngi ñaan bu nangul xasida gi mu def ko wa bala maa ngi ñaan mu nangu min xaay li jëlee ci ajo xaasi abiyaat yi mu jublu ci boppam moom sëriñ bi xawluhu ak waxam xaasa gii wa jaal lahu te mu def ko wala dégg nga mu def ko rek mooy mu mujjal ko mooy mu boole ko mu def ko rek min akbaril ayat bokk ci gën kaa màgg ci keemaanam yi anam gan xasida mooy googu ana ban xasida la wax wa ja'aloo min akbaril ayaati mu ne akramani jamilu akramani mooy teral na ma aljamilu yàlla muy aji rafet ji su ko defee nag teral na ma googu yàlla muy aji rafet ji léegi nag li ko yàlla teral rek moom lay ci biir xasida moo tax mu tënkee ko akramani jamilu teral yi gis nga Serigne Touba teral yi ko yàlla teral ba ko ci a neex mooy alxuraan moo tax toujours sunu yàlla teral na ma rek faaw nga dégg mu wax alxuraan moom bala moo sant geneen may cërlee gu ko yàlla cërlee alxuraan lay sant xaada woo mat na illee jox ma allahu yàlla sikuroo téeréem bi alxakim bada buñ xarañee ci solo lu fàddu wa xaada woo mat na lii jox ma maa wadduhoo la soppoon na ko la bëggoon na ko ku la xakim bépp aji xereñ ci xam-xam yi. nekkal na ma dégg nga nekkal goo xam ne la gën a jëriñe manees na wax ne man Serigne Touba téere bi defal na ma ko a ah, la nga xam ne moo gën a jëriñe ci xëyti njëriñ rek moo gën a baax gën a kawe ci xëyti njëriñ moo gën a gànju rek alquran defal na ma ko moo tax kay aji tedd a naafee aji jëriñe nee na xat kaana téeram boobu nekkal na lii ñal ma bi an fail manaafe gën kaa jëriñ ci xeeti njëriñ yi alkarim yi nga delloo ko ci yàlla anaafe nga delloo ci yàlla rabbi ya ci yàlla mu ne téeram bi nag moo ma nekkal gën kaa jëriñ ci xeeti njëriñ yi rafaani yëkkatee na ci téere bi ilayhi jëmee ma ci moom arafion yàlla muy aji yëkkati ko jotee aji yëkkati ko ko neex zayyaani dana ma gunge bii ci moom al aminu ko ñu wóolu sa yaani gunge na ma bii ci alquran al amin ko ñu wóolu ko asafin ko de aji ramuña ka ja aji mooy aji ramuja ëllëg yamal xiyaam di yónent bi nee na yàlla ma yëkkati de mais ci alquran la ma yëkkatee jëmee ma ci boppam mais yónent bi moo ma gunge laa fa kubar yónent bii di al amin mooy ku wóor tabaarakallaa ku ñëpp wóolu waaye mooy saafin bu yowmal xiyaame yàlla nangu na ak ramoom dana ramu nee na bi ma yàlla yëkkatee ci alquran jëmee ma ci boppam yónent bi moo ma gunge gunge mooy ànd ak moom rek kon sunu borom bi mu yëkkatee sëñ bi mu jëm ci moom yonent bi yonent bi la àndat moo tax mu ne rafaani yëkkatee na ma bii ci alquran ilay jëmee ma ci moom yàlla arafian yàlla muy aji yëkkati ko ju tey aji yëkkati ku ko neex sa yaani gunge na ma mooy ànd naag man bii ci alquran al amin ku ñu wóolu ko asafian kadi aji ramu jaam ñi boo ëllëg yomal xiyaamee mu tekki ne malakanihi moom loo na ma ko allahu yàlla tamlikan moom loo goo xamee ne ajat lottu na anu walis ko siwaahu moom yàlla war na jas teewal na lii ci man alwaxdu la ma digoon mooy dëxal ba yàlla moom loo na ma téere bi moom loo goo xam ne ku moom rek lottu nga ci lottu nga ci moom loo ko. nag li ñu koy firee mooy wirdatu almanqus la ko yàlla digoon ci géej géej joxe ko gànnaar moo tax ne malaka ni moom yàlla moom loo na ma alquran malaka ni moom loo ma ko allahu yàlla tamlikan moom loo goo xam ne ajas lottu na an xoolis ko si waaw ku dul moom ni ma ko yàlla moom loo daal ku moom rek lottu nga ca dégg nga ndax yàllaa ko moom nag wa najasa teewal na moom yàlla lii ci man al wax du dëhël ba dëhël bu teew mooy loo xam ne gis nga ko jàkkaarloo nga moom jàkkaarloo nga ak moom naajeytuhoo diyante nag moom yàlla bii ci alquran bi laa takkal fii ci benn coona wa yu baax yi dana puugaraloo bii ci sama jëmm ji salafan ñi fi jiitu woon ka xalif yi ni ki ñu leen wuutu kuutaay bu baax mu ne diyante nag sama borom ci alquran te aw ma ci benn coona benn tolof tolof ni ngay waxanteeg sa morom di ko woo téléphone noonu lay jotee yàlla ci biir alquran waaye mboolem salaf yi buñ na salaf mooy ñu fi jiitoon te nekk ci lu baax xalaf mooy ñi leen donn jaar fañ jaar nga xamee ne mooy dëgg mukk bokk da ñi nga xam ne nag ñoom la alquran wax ne fa xalafa min ba'dihim xalfun adaa'u salaata wa tabba'u sawaat am na ñu alquran di xas na ñoom seen kuutaay baaxut déedéet dégg nga kooku mooy salaf moo tax ne diggante nag yàlla ci alquran taw ma ci benn coono way yu bàyyi te moom yàlla dana puukaruloo bii ci sama jëm yi salafan way jiitu ña mooy woy dawal ña ka xalif yi ni ko way wuutu ña mooy ñi leen kuutaay kuutaay lu baax tabaarakallaahu ñoom ñëpp da puukaroo sëriñ Tuubaa te yàlla eh, tabaarakallaahu moo leen di wax ñi puukaroo borom Tuubaa yaquudu dana womatal faw lii di ma jox alquran alkitaabu téere bi di alquran maa loo xamee ne xaaba fàddu na anil wara walis bi defi waxaada womatal na lii jox ma aljamilu yàlla muy aji taaru gi asuura saari alquran yëpp yey téeméer fukk ak ñeent yàlla bam ko baadire yëpp kanaan nag par saar lay jàng yàlla tiim ko di ko xool mu ne isaa talabtu saa bu ma jàngee benn saar aw aaya wala benn laaya lu mel ni alif laam rek in xaara dal di womatu lii ñëw ci man bisru soroti mbégteem sama mbégteem sama saar ma jàng wal aaya ak aaya ba ma jàng. mu ne man benn sar rek su ma ko jàngee masalan ma wax rek juróom-ñaari euh, aaya fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmi diini iyyaka nahmadu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala daalin amin xam nga juróom-ñaari aaya la benn saar la. mu ne su ma jàngee benn saar wu mel ni fatiha wala lu wu tuutee ni ina antinakal kawsara fasali li rabbika wanaar ina saaniyaku wal abtaru nee na su ma ko jàngee rek mbég mbégte ma mbégte ma ci nekk dafay dafay dafay gër rek mam mu ñëw ci man maanaam saar wu ma jàng rek mbégte ma day ñëw ci man ma jëlaat beneen aaya commencé suratul baqara alif lam mim bala ma ne alhamdulillahi rabbil alamin rek nga xam ne aaya la wala alif lam mim aaya la su ko defee itam mbégteem aaya ba dafay ñëw ci man saaro mbégte ma day ñëw ci man mbégte ma aaya ba ñëw ci man moo tax ma isaa talatu saa bu ma jàngee suuratan benn saar aw aaya wala benn aya in qaada womatu liy ñëw ci man bisuru suurati mbégteem sama saar wala aaya ak mbégteem sama aay yi <laughs> xam nga kenn ku nekk la ngay jàng yaa ko moom kat boo tiimee alxuraan di jàng yoolu yëpp ci yow lay dellu jëmut ci kenn loolu tam moo tax bisru sóorati wala aaya alxuraan kenn ku nekk am nga fi saar am nga fi aya bu la neexee sax nga ne maa moom alxuraan lépp noo ko gën a jàngee mu gën a baax mbégte mi ci yow rek lay dellu aay ci mbégte mi ci yow lay dellu moo tax ma ne su ma jàngee benn saar mbaa aaye mbégteem sama saar yi may jàng dafay indi ci man parce que maa koy jàng dafay womatu ñëw ci man mbégteem sama aay yi may jàng dafay womatu ñëw ci man parce que maa koy jàng. lam yan woon ni maa jublu ba tawalay sa yan woon ni du ma jublu waayet ak tëkku dégg nga wa busaral kitaab yi dégg nga wala nga ne waxaada womat na lii jox ma almuid yàlla muy aji delloo nit ñëpp ci mennam penc a qiyaam busaral kitaab mbégteem téer bi di alquran nee na mosul maa jublu te duma ma jublu lu ñuy tuddee tëkku tëkku moom nga jàng ci alquran sunu borom wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ko alquran ji li ko tax a jóg fasakir la ko wax bil qurani mais kan man yaqaafu wa aydi man yaqaafu wa aydi kooku rek moo tax a jóg alquran dafa ñëw sunu borom ne yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam nahnu ahlamu bima yaquluna wa ma anta alayhim bi jabaarin fasakir bil qurani man yaqaafu wa aydi yow yonent bi ñun yàlla xam nañ fenkat yi bokkaalekat yi liñ lay wax yëpp ci màkka waaye nag na xamee ne yow yonent bi nekkoo yonent boo xam ne dañ laa yebal xërtal la seen kaw ngir nga forcer leen ci ñi gëm yàlla yow li la war mooy liñ la jox muy risaale gi mooy nga jotal ko rek alquran itam li tax ma jox la ko man yàlla nanga nga fàttali ci alquran képp ku ragal sama tëkku te mooy way weddi ñi ak way mooy ñi nanga nga leen ragalloo di leen waar di leen fàttali su fekkee soo leen fàttalee fàttali jëriñ leen ndax ñaata nit ñoo fi féeteerlu woon alquran lañ digg ñi di ko jàng ñi tuub ca diggu ci lislaam seen xol nooy nepp ñi gëm yonent bi kon fasakir bil quran man xaafay di Sëñ Tuubaa nee na man lu ñuy tuddee tëkku mosul maa jublu te te du ma mos a jublu lool la muy tekki rek mooy mostu dem ci loo xam ne dañ ko ciy tëkkoo mostu def lu ñu koy tëkkoo foo ko fekk rek lu yàlla di dële ca la nekk ok lam yéen wu di mosul jublu wala s yéen wu du ma jublu wax benn tëkku waxaada womat na li jëmee ci man almuhit yàlla muy aji delloo nit ñëpp ci mel ni penc womat na ci man bu solal kitaab mbégte mi nekk ci alquran yëpp xam a fee dafa waxoon isa talabtu suuratan aw aaya su ma jàngee benn saar wala aaya mbégteem saar ak aaya ba ñooy womatu ñëw ci man léegi na fi mu ne yàlla ci boppam mbégteem saar yaag dégg nga xaraf yaag aaya yaag yëpp sunu borom womat na ko bu ñëw ci man. jeesa u rabbi payooruk sama borom wa jeesa ul muntaxa ak bi rafeen ci rafaxa mooy yëkkati wartixa ak kawe daraja mu ne payuk sama borom gim ma defal ma janoog moom ak payuk yonent bi gim ma defal ma janoog moom yonent bi di muntaxa mooy ku ñu tànn ñoom ñaar seen fay daal bégal nañ ma lool bégal goo xam ne moo tax sama mbir yëpp di jëm kaw di gën di yëkkatiku bis bu ne jesa ura bi payuk sama borom wa jesaawul muntaxa ak payoru kañu tànn ki di yonent bi xat basaraan yi ñoom ñaar bégloo nañ ma de bégal nañ ma de bi rafeen ci rafaxa rafaxa mooy yëkkati yëkkati nañ sama mbir yëpp wartiqa ak yéegug daraja masarani wala masarati sama bég sama mbégte tan moo day dolleeku ilal jinaan ba may dugal jana wa dégg nga wali ñeel na ma tilaawati sama jàng gi may jàng alquran waqati ak sama mbind kun mu koom mu bari mu ne may dugal jana sama mbégte moom day gën di dolleeku di gën di yokk waaye du wàññeeku te jàng gi may jàng téere bi yàlla bii di ak bind gi may bind ay xasaayit tabaarakallaahu koom mu bari moo ma cee dikkal wali ñeel na ma tilaawati sama jàng mooy am naa rek wali am naa tilaawati sama jàng mi jàng alquran waxati ak sama mbind mi xun mu koom mu bari bari yan xoo dana jublu li xëyri jëm ci ku doon man abadan faw maa lépp loo xam ne saa a dana ma métti dana ma naqari bilanti xan ci lu muy jublu lii ci man wa man ak képp koo xamee ne asaa a dana ma naqaral mu ne lépp loo xam ne lu may métti la mbaa mu di ma naqari kooku dana jublu jëm ci feneen fu bokk ak man faw te dootuma jublu mukk wala koo xam ne dafa ñëw di ma méttital mbaa mu di ma naqaral wa man asaa nit la maa saa nag maa mbir la mais man nag nit lay doon ku ñëw di ma naqaral wala loo xam ne daf may métti di ma naqari tabaarakallaahu loolu yëpp yàlla musal na ma ci dootuma dal. xaada womat na li jëmee ci man bi tafsiri ci mbégte sikruhu téeréem ba alxakim ba de buñ xereñee ci sollu faddu wa innahu naka moom sikrun téere la xakim ba de aji ba de buñ xereñee ci sollu faddu de bilam tiran ci weerante mu ne ah suñu borom defal na ma mbégte mi nekk ci téeram bii ñi xere ñi xereñe solo lu fado maanaam mboolem mbégte yi nekk ci alxuraan yàlla defal na ko womatal na ma ko ndax téere la boo xam ne bu ñu xereñee la ci solo lu fàddu ci lu benn werante ku ne xam ne ne alxuraan bi mu wàccee ba léegi kenn xamut ko génération bu ne da ngay def ne tey jii la wàcc wax na lu jàll lu teew luy ñëw tudd mos a sàppikat ko kon xaada womat na liy jox ma bi tafsir lu ñuy tuddee mbégteem sikruhu téeram ba alaakim bari buñ xëreñ ci sollu fàddu alquran daal yàlla mi ko wàcc ci yonent bi moo ma womatal mbégte ma ca nekk wa innahu te nag moom alquran si kuroon la xakim bari buñ xëreñee ci sollu fàddu bi lam tiran ci lurut benn wala bu la neexee nga ne xaade womat na jox ma bi tafsiri ci mbégteem sigrohoo téeram ba alxakim ba de aji bëri ay hikma wa innahu naka moom téere bi si la boo xam ne xakim bari buñ xëreñee ci sollu fàddu la bilam tiran ci lu benn werante xakim bu njëkk nga firee ko yàlla mu bari ay hikma ku xereñ ci ay mbiram ak lijjanti mbiri jaamam mu tek ci wakkaana lii wakkaana nekkal moom yàlla bi kërim yi ci tedd ngam wa jamaali ak taaram wa jamaali ak taaram bi abadan faw bila avrin ci lu benn gàkk-gàkk wala këdirin wala ay nax nax fii di nekk ci man wala bay ni du caagri mi nekk sama diggante wa bay na ahadin ak diggante kenn abadan faw amin yàlla nga nangu ñaan yaa rabal alamina yow yàlla muy borom bindéef yi mu ne yàlla nekkal na ma ci tedd nga am tedd gim tedd nekkal na ma ci yàlla kum nekkal ci tedd nga am nga tedd yàlla nekkal na ma ci taaram yàlla kum nekkal ci taaram nga am taar mu ne yàlla ko nekkal na ma ci ñaar faw te benn gàkk-gàkk du ci dugg benn nëx-nëx du nekk ci man wala muy nekk sama diggante ak diggante kenn yàlla nga nangu ñaan yow yàlla muy borom bindéef yi fekk day ñaan fekk luñ ko defal la subhaan rabbika tudd na ma sell ak buur bi rabbil ansati moom borom tedd nga amaa yi walis lépp luñ koy niraloo ci ay doom ak yu ko niru wasalaamun jàmm ji sax dàkk alal mursalin yàlla nekk ci mboolem ñu ñu yónni ña walhamdu melo sax dàkk te rafet li laay aji sax la ñeel yàlla rabbil alamin moom muy borom bi def yi mu ne maa ngi sëril suñu borom lépp lu yellut ci moom moom muy borom tedd nga maa ngi ñaanal yónent yëpp ñi am jàmm ak mucc tagg yu rafet yeeg xeeti melu yu sax yëpp te rafet aji sax la ñeel yàlla moom mi nga xam ne mooy borom mbindeef yi kon xasida googu nga xam ne moom la wax ne mooy akramunil jamilu foofu la yem léegi nag dafay dugaat ci geneen xasida goo xam ne da koo tënkee al alifa wa baraka lay fiihi